صلى الله عليه واله وصحبه اجمعين يقول المولى عز وجل في محكم تنزيله بعد اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين بقي سنو سبحانه وتعالى من وقت سورة آل عمران يا الله دي دفل نجلت نخيو البريري بوخم نجلت نتخم النمطل خيو البوخم نسنو برام نخيو البريري لن mu ne jamono bi mu xoolee waa àddina gis ni ñu ngi ci ak lëndëmte mu yebal ci ñoom ab yonent yonent boo xam ni bàyyi ko wut sa jinne ya bàyyi ko wut sa malaaka ya waaye mi ngi bàyyi ko fi yéen kon loolu ci seeni ngëneel la bokkaat ba léegi yàlla may leen ko yonent boobu mu dikkee di leen jàngal alquran di leen yar ci sunna te di sellal seeni jikko te lu ko jiitu fekk na ay ceet doy wér kin ngeen doonoon loolu day mbokk yi in dalla ala shay'in su amee lenn lu muy tekkale la muy wund mooy rëy gu mu rëy yónni gu yàlla yónni woon yonente bi sallallahu alayhi wa sallam est ce yi ñun nag bokk na ci tax mu jariñ borom mooy nit ki am na xéewal xéewal gi lii la rëy na ci ñun comme ni ko suñu borom waxee fekk yëg nañ xéewal bi ñu am xam ngeen doomu aadama léeg-léeg xéewal dana tegi ci loxo waaye du ko jariñoo li tax du ko jariñoo parce que daf koo xamul waaye ci xam mu yore dëgg-dëgg da koy yi ñun suñu xeet wi xeet yu njëkk ya dañ leen doon ñee ñi jàng taarix xam nañ li may wax ci dundu Muusa ak dundu Isa ñoom buñ daan nett li seeni nit xeetu Muhammad ni ñuy gàttee fan ni seen dund di barkeele ak yi leen di yàllay defal da ngay gis ñooñu doon ngéejo sax ñoom bañoon a judd bàyyi ba xeet wi ñëw ñu doog a bokk ci xeet woowu waaye nag ma al asafi shadid ñun lim yore xamuñu ko moo tax ñu koy fooye tey jii mbokk yi jullit ñi yàlla def na alhamdulilah yàlla defal na leen tawfiq waxuma la soo jëloon ñaari pàcc pàcc bu ca nekk rek mbokk yi daf ñuy firndeel ni ñun ñu ngi ci ay xéewal te yéeguñu ko moo tax ibn al qayim di wax ni رب متقلب في نعم وهو لا يشعر bari waa na koo xamante ni mi ngi ballawti ko ci ay xéwal yu rëy rëy rëy rëy waaye ndeysaan moom sax yëgut ni am nay xéwal jëlal ala sabili misaal xaaj bu njëkk bi mooy xeet yu njëkk yi ak xeetu tey yi xool suñu borom lim ñu defal ñun mbokk yi xeetu lislaam yi bu njëkkoon ñoom ku ci mosaan a def bàkkaar maanaam borom bi day xaaw sa sutura xaaw sutura boo xamante ni man ngaa ñëw fekk ñu bind këf ko ci sa buntu kër maanaam daal suñu borom dana xaaw yi sutura ala ayati xaal te nekk xam nga sa bopp ñun man mii ak yéen ñii kenn ku ci nekk xam nga sa am na yoo xam ni ñaanoo yàlla ba keroog ngay faatu mu génn bu njëkkoon boo gisee nit ñi dañ am jom nga def gis dara am xawee sutura mu jaral ko xaru baa mu jaral ko tuq doonte loolu ban na parce que dañoo amoon lu ñuy jomb am lu ñuy bañ am lu ñuy rus xeetu lislaam yi tey suñu borom mi lu bare bare bare bare suñu borom lu bare bare bare ci ay ayib xamal nañu ko waaye mi ngi ñu ko dencal te xeetu njëkk wa loolu amut woon ñaareel bi mooy xeetu njëkk ya dañ daan jihaad comme ni ñuy jihaade ñun fii sabilillah ba noppi jël màng ma taal ko ngir di wane ni yàlla nangu na ko wala yàlla nangu duñ ko jariñoo ñun suñu xeet tey dañ koy jëriñoo bu njëkkoon nii ngay def yow ko lu julli fekk même boo gisul jàkk nga ne xaaral ma julli foofa déedéet ñoom kay bu julli jotee te maabat ba rek ci jaamukaay yàlla ba fu moom fu man lu mu sori sori di nga dem ak yeneen ak yeneen ak yeneen xoolal yombal yi nga xam ne suñu borom xoolal ñu njëkk ñi dañ daan dund ay juróomi téeméeri at yow nga ñëw même à 60 ans rek sa dund gën a barkeel xoolal yàlla yaalama ahlul kitab allah yaqdiruna ala shay'in min fadlillah yàlla mu ne ah gars yi dina xanaa ba yeboo ñu daal di xam ni mbir yi moom mënuñ ci dara yëfi suñ borom la wa anna al fadla bi yadi llah yuti man yasha wallahu dul fadli al azim imam ju mag dafa taalif benn téere tuddee ko al qawlu al ahmad fi xasaisi ummati ahmad wax yu ñu gërëm ci jagoo yi nga xam ne xeetu muhammad ñoo ko jagoo lim na ci ay mbir yu bare bari yoo xam ne su ma ko doon lim tey duñ ci jóg wala danañ ci yéex a jóg bopp ci jagoo yoo xam ne yàlla moo ko jagleel sunu xeet yi nga jóge ci loola nag ñëw ci ci nga xam ne ñoo ca gën a sell alqurunu ngi ci xéewal goo xam ne yàlla rek moo xam nu mu toll su fi ne koo gis ci ñun mi ngi jàmbat ñun fi ne jàpp nañ ne fi ne àddina bi tukki na ba noppi su ne ko ci waxtanal ba tambale ci man limay wax man ci la bok man ko ci waxtanal fi ne sa way da ngay yàq da nga koy sax da ngay waxa waxa waxa waxa wax ba yow da ngay bëgg sax ci sa way yàlla dal di ko xitali ci mel ni moom ci ba mo ko tax ci kaw fekk dara dalu dar dara xewul moom kay mo yëgut ni xam bokki sahaba saxaaba yi ñooñu gën foofu yonente yàlla bi leen na xayru naasi qarni ma gën ci maas yi mooy saa da gëstu top top rek ba ñi ci téeméeri at la yonent yàlla bi nee na di ngeen yëkkati seen loxo ñu ne dañuy xare ñu ne waaw ku gis yonent bee ngi fi ñu ne waaw mu ni dem leen da ngeen di gañe da ngeen di xare waaw ku gis yonent bi mi ngi fi déedéet néewut waaye ku gis ku ko gis mi ngi fi mu ne dem leen dangeen ngeen di xare da di gañe ku gis yonent bi mi ngi fi déedéet ku gis saxaaba yi mi ngi fi waaye ku gis taabi'un yi ñu ngi fi mu ne dem leen da di gañe ma ngi ñett yoon yooyu ngëneel ko am mbokk yi sunu butéelu Evian yi ñuy naan yonent bi mosu koo naan sallallahu alayhi wa sallam déedéet yu sedd seddaan yi yonent bi ndoxum teen la doon naan ñun ñii naanuñu ndoxum teen te yonent bi ndoxum teen la doon naan bañ ne ko ba doon tànn da doon tànn sax teen bu gën a neex boo demee ci toolub Abu Talha ba Berha nga xamante ni ci teer tool yi gën a neex ndox xam ngeen ndox yi day gën a neexal ci ndox seloo bët yi yonent bi da doon tàmm Berha di fa naanee ji yonent bi dund na ba paatu mësul tëdd ci li nooy waxuma dafa xaram nag damay wax maanaam si bunte xoolal xéewal yi ñu yàlla defal ba noppi ñu ngi jàmbat musul tëdd ci lu nooy sa la ko Omar ñëween fekk loxo baa ngi marqué Omar di jooy yonente bi ni ko looy jooy mu ni ko xoolal Qaysar ak Kisra buur yu saay-saay yu àddina yooyu ak yu nooy ya ñuy tëdd yonente bi ni ko awa fii shakkin yabna al-Xattaab ma yow ndax da ngay tëkk saaka suñu yëf yi منك أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا يعني أي نت لن يوقعني لن يورا ما لكن نت لا يرى دجل جهد ولم كفيت أصوه كون نون كد ني صلى الله عليه وسلم لم يدلس لرم ولا لم تجاب يوقعني داي ووكو صلى الله عليه وآله وسلم yonent bi dund na ba faatu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam xeeti yi ñuy war waru ci benn yow sa loolu war na mu sax mu wàññeenti ko ba sënu bi gaañu moo waraloon xadis yooyu ngay dégg ñu ne ba mu doon julli dafa toogoon ak yeneen ak yeneen yoo xam ne tey mbokk yi ñun ko am tey xew ñun suñu kër yi moo tax kër yonent bi yonent bi ay xujaraat la amoon bal sax amul woon kër nag xam nga soo ne yonent bi amul kër sax nit ñi dañuy jàpp ne lii mooy kër yonent bi ay néeg la amoon moo tax mu ne inna alladina yunaaduunaka min waraa alxujuraat yonent bi li mu amoon bi jàkka ji paa pare nekk ay sodaa ñëw tax ci muy ab néeg nekk ummi salama nekk fële nekk al sawdatu nekk fële nekk dëw nekk fële muy ay mbaari mbaari mbaar te ay mbaari ñax la woon yoo xam ne lii ci tàndarma lañ ko defaree woon photo yi ñu doon samp ca néeg ba ay dàtti tàndarma la muy ga tron bi ah xëdd lañ doon xëddee ca kaw ay lii tàndarma ndax ñoom amoon nañ ay toile yi teg ca kaw pour bu tawee du seen déedéet moo tax da daan taw seen néeg yi di seen seen bagage yi tooy comme nañ doon ci jàkka yi xoolal yooyu mbokk yi ak ñun li ñu am tey say boo bëggoon a jub rek say nga dem fenn waruwaay yu neex waruwaay yu bakkane yaa ngi naan galaat yaa ngi naan lu sedd ndeysaan yent yàlla mu ne man asbax minkum muaafan fi badanihi aminan fi sirbihi indahu quutu yawmi fa ka annama xizat lahu dunia bi xadabiriha ci xadis ab muslim ku yeewu lamb lamb lamb dara nekkul fépp am jaam nga yow xool kër gi dara xewul am jaam mu ni bi nga lambee sa koos loo mën a añee ak loo mën a ndekkee ma mu ni yow àdduna li ci biiram ci xéewal yow am nga ko xoolal danger yi leen doon xaar mbokk yi xoolal woor ba am fukki fan ak juróom ñaar muy premier koor nga xam ni mii na góor di koor dina xamoon xamoon nañu woor ndax da ngay waral asura waaye woor di taral woor tey woor suba woor ginnaaw suba jëmale weeru dee xamuñu ko woor ak niñ ko njëkk farataal ñi woor ba ci fukk ak juróom ñaar ya juróom benn ya nga xam ni fala nuy loofee suñu borom farataal sa xeer jihaadu badar nga xam ni dem force sala saxaaba yi génn seen xiif boobu dugg ci àll bi ci tàngoor bi pour war a xeexi nga xam ne say say jabar ñi ngi ci danger war laa séen say doom ñi ngi ci danger ñàkk bàyyi sa sa tool bi nga bayoon ba nga xamante ni dara desul lu mu ñam xul mbokk yi xulli loolu yaa ngi baa ngi waaj nga bàyyi ko fi dem yow même boo dil si waatee sax sëñ bi affaire yi mën naa yàqu sa gannaaw waaye nag turiduna arada dunia suñu borom mooy ah fañatam àdduna yi moo leen gënal ah yàlla day moom la ne fa moom lu rëy la de gis nga xoolal ker Tabuk wallahi mbokk yi borom xam-xam yi dañuy wax ni Tabuk naaj wu tàng wi yonent bi génne woon saxaaba yi boo génnoon ci mbedd mi ci ngelaw li ëpp la te safoo tay bakkan loolu mën na laa bori maanaam tàngoor bi dafa métti ba boo ko xeeñtoo mën na laa bori ngay génn deret sa bakkan yonent bi daal di woo saxaaba yi fekk jamono jooju xam ngeen jamonoy tàngoor lay doon kon meññeente nawet mi ngi waaj a ñëw kon ku nekk yaa ngi am loo ngi séentu yonent bi sallallahu alayhi wa fekk xam geen ni jamono ju baykat di waaj a séentu lu muy góob ak lu jeex day fekk lam day jot ci sàq ya jeex na fokk kon lu bàyyi këram moom moom la tal yonent bi ne leen kaay leen li ngeen am da ngeen koy indi saxaaba yi indi lañ am pare pour ànd ak yonent bi génn ci naaju tàng bi naaj wu tàng wu métt boo xam ni melal ko jéggi na dayo saxaaba yi fas yéeneen génn ànd ak yonente bi sallallahu alayhi wa sallam xoolal ocean sabu xunayn muraytia xandaq xaybar xoolal xeex yi ñu xeex ni mu baree te ñooñu la leen yàlla dig ci ay xéwal xànja la ñu ko dig malgré que yooyu yëpp waruwaay yu doyo doyati lañ doon am boo gisee ñu naan xof ndax bu bënnee ak bu bënnul mën naa mën naa jàpp ahankay mën nga caa masa ndax saxaaba yi seen xof yi da doon bënn ba daawuñu am luñ billahi aleykum ndax du ngeen faral di dégg saxaaba yi ñu naan jiw sàngam ba muy yeneen bi dem na banaan jigéen ñi bu leen njëkk siggi góor ñi bu imaam siggee bàyyi leen ba góor yi siggi lu waral loolu parce que amul woon yëre yu jot yu ñu doon sol góor day sëgg yaramam di feeñ awraam di feeñ xadis bi ma xadis lu wér jigéen ñi bu leen yëkkati seen bopp yi ci sujjóot lu dul da ngeen a bàyyi ba góor ñi yëkkati ko ba lu tax ndax yére yi daf jaabir dikk ni ko man li ma yor daa matu mu ne ko bu fekkee yére bi daa rëy ko mu laal ci mbagg mi laal liggéey su fekkee dafa xat mu ni woddoo ko rek ñu ñu wujju mbax mi wóora muuraale fii ak yeneen ak yeneen moo tax boo jàngee siira wallahi ki nga xam ne mbokk yi ñun ndikkati ci ngan di xéewal lan nekk te yëgunu ko léegi nag bu loolu amee est bu baax a baax góorgóorlu lu googu naan dama fekk ak yombal da caa am waaye saa bu yëf yi yombee ndeysaan nit ki dafay foog dafay caaxaan moo tax may jël xattaab bañ ko laajee yëf yi mu ne yëf yi xam nga kañ lay commencé yàq mu ne saa buñ dee ba nit ñi fekkeewul démb judd ci moo tax di gone yi saxaaba yi commencé ñëw saabiro yi commencé ñëw affaire yi commencé soppeeku parce que ñële ñoo xamoon yëf ya lan meloon yonent bi jaraloon leen lu ne nag sallallahu alayhi wa sallam nit day yore ci alal lu dul jeex aaya sàngara wàcc mu mën a jël alal jël tuur ko sàngara sax defak yàlla benn waaye jégg ab xadis rek Uqbata ibn Amir takk doog jigéen joo xam ni nampoon na ak moom benn meer ñëw ni ko yéen ñaar ñii jëkkër ngeen ak jabar mu ne waaw mu ne ko déggoon na yonent bu ni ñaar ñu bokk namp duñ takkante mu war gëleemam jëm ci Madina pour laajte ci masala boobu ak yeneen ak yeneen yoo xam ni ci ay xeeti coono la xoolal nañ doon jàngee xoolal nañ doon jihaadee xoolal seen kër ya nam meloon xoolal risque yi leen doon xaar xoolal seen jigéen ña nam sonnee woon dem ba dëkk bi embargo leen seen jigéen ñi bu ñu ñëwee marché kenn du leen jaay seeni jigéen bu ñu ŋàbbee ay leget dem marché jaay kenn du jënd sa ñoom al-allaama al-xaafid ibnu xajar seen isaaba fi tamyiz saxaaba ma nga fa lim ab ay ab lim ci saxaaba yi ñoo xam ni tey ko ci tudd turam ñoom na naan est ce que xam ñu ko lu ko waral moy deena te dee ñek njëkk bi ñee dañoo dee ci xare mo tax siiwuñu ñe dañu de ci jamono bekkoor ya moo tax siiwuñu ñe dañu de ci jamono embargo ba moo tax siiwuñu ila akhir ma tan ko lolu li ma namm ci nekk li ko mbokk yi moy ñu xam ni ñun li ñu am ni du jafe-jafe de billahi alladhi la ilaha illa huwa bi jafe-jafe de dara su ko defee kon la yàlla dama ko yonente bi naa ka tilka min ambaai rusul lii ngay dégg ci xabaari yonente yi ma ne la ko nettali maa nu sabbitu bihi quraanak ngir sa xol bi nga gën a dëgër ci li nga nekk xam ne yow nekkati xéewal nga yore gis nga de ak yeneen ak yeneen yoo xamante ni maanaam wa kullan naqussu alayka min ambaai ma qad sabaq mboolem liñ lay nettali ci yonent yi ñuy jiitu woon ngir rek nga gën a xam moo tax mu ne in yamsaskum xarsun gis nga bu ngeen amee ay problème faqad massal qawma xarsun mislu am na problème yu mel ni ñoom yu daloon gaaya wa tilka al ayyaamu nudaawiluha bayna nnaas ñun dañuy feebar ñun ku ci am nga loo mën a fajoo hôpital yaa ngi nii ñu am ay jumtukaay yu soppi si yoo xam tap-tap ñu mën laa faj ñoom buñ demaan xare ñi ñëw nun ay hôpital yonent bi amul woon sax góor gu mën a nekk médecin yonent bi dafa jëloon jigéen bi ñuy wax rafida andi ko ca jàkka ja utal ko maar ci biir jàkka ji muy hospitalisé góor ñi di leen faj saab nu mois ndaw soosu moo ko doon faj parce que góor ñëpp dañ leen soxla ci jihaad jigéen ñaa doon faj mu amuloon problème mu faj da ngay soo xamante ni sawaay bu feebaree day ci àll bi am na yenn xeeti garab yoo xam ne boo ko dëbbee nga tay ko ci loolu lay fajoo ak yeneen ak yeneen ak yeneen ñoom bu luwaa leen toll lu daan fajoo ñoom bu ñu musaana si buru luñ daan fajoo yi ñu am ñun ñii yëpp ndeysaan ñu am ci woon waaye ñoo gënoon a neex ak dund kon ndeke al ibratu laysat bil maal ndeke mbir mi nekku ci ay bien ak alal waaye ibra bi fan la mooy ngëm yàlla boo xam ne bu dëgg la moo tax imam ibn al qayyim bi wax ni nga buur yi te loolu sax ibn al-qayyim da ko ne ci waaye mag ñu salaf yi yàgg ñu ñoo ko doon wax gis nga buur yi bu ñu xamoon li ñuy dund ci neexitu ngëm danañ ñëw xeexal ñun ba nangu leen yore ndax lu tax firdawsul mu'min qalbuhu bi imani nekk ta firdaw daw ci adna muy sa xol bi fees du mu ak la nga xamanteni ni gëm yàlla kon mbokk yi jumlatul xawli moy ñu gor gor lu waat defaraat xol yi gor gor lu waat xamni fi ne ci ay xéwal la ñu gor lu waat ikni buntu àjjana giñ fas yéenee raj rajloo pour dugg ñu nga koy raj rajloo ay nit yoo xam ni buñ ñu mayoon te lañ am lu toll ni lim liggéey du wàññi te lañ yor dara te ñoom dañuy dugg ànd ak ñun loolu la ñaan yàlla waaye na nga nar a dajeel ñoom moom am nañu ridallahi fii ci àddina ñoom signal nañ leen ne yéen di ngeen dugg ba noppi yow kenn signal la dara te ñoom nga fas yéene àndal dugg nee ngaay zaam kon jàpp naa ni kat jaar na nga góorgóorlu jaadu na nga farluwaat jaadu na nga delloowaat yàlla njukkal kenn ku nekk nag moo laaj boppam man bu ma yàlla boole woon ca jamono joojee ndax risque yi saxaaba yi doon jël danaa ko jël wala déet man de laaj bi dama koy laaj sama bopp toujours te saa ma ko laajee rek naam laaj du ma mën a am tontu ndax am na mawaaqit yu métti yoo xam ne saxaaba yi fekkee woon nañ ko yoo xam ne da ngay dem da ngay commencé am sikk na saxaaba yoo xam dem nañ ba naan affaire yi seen cee la jax jaxal waaye nag wallahu yu ayidu bi nasrihi man yasha yàlla mooy dimbale ci mu dimbaleen ku ko koob yal na yàlla boole ci ñooñu muy dimbale dafa tawfiq ak jub ñu ngi ñaan suñu borom dafa ñu bopp lu tolloog daawaayu xel te it laa sakka xawla quwa mënuñu ko am lu dul ci yàlla bàyyi ko te it ñu fàttaliku ni nag ànd ak lii nu nekk tey am na ñoo xam tarxiis nañ bu yàgg bàyyi ko dem mbir mi daa gudd lool ñu ay tuub tànk lañ demagum fenn ngay jaaw ak noonu te mbir mi jàpp naa ni bu ma mënta joxe ni diw ak diw yéen di ngeen ci bay jaaw dana am di ci bay ñu ci bay jaaw si ñun kon li la dese bare na lool yoon wu gudd la am nay naka baat ay téq téq da ngaa bëgg dugg àjjana seytaane ngi taxaw sawara la bëgg nga tàbbi fa yow ndax moom ku lakkale morom mu lakkale comme moom lay wër su boobaa nag jaar na nga góorgóorlu moo tax imaam wax bu ibni mu nabbi dafa romb benn waaye ni ko waaw soo rombee ab xaj xaj bi baw la nooy def muy dama koy sànniw xeer mu ni bawaatee ñëw mu ne ma sànniwaat ko xeer mu ni bawaatee ñëw mu ne ma jëlaat aw xeer mu ne ko li ngay def da lay sonal xanaa borom xaj ba néew ko mu ne ahan mu ni dama làq sa gannaaw ndax moom buy wax xaj bi toogal xaj bi toog kon seytaane sunu noonu la te sunu borom moo ko moom bu ñu làqoo sunu musal nu yàlla yàlla musal nu ci ay pexeem ak ay loram wa sallallahu sallam ala muhammad wa alihi wa sallam